jaa ngeen jëf mbokk yi ak ñun dañu seetaan s'abonner ci page bi nga cliquer ci cloche bi like ko def sa commentaire sa noppee nga partagé ko ngir lépp lu ñuy waxtaanee lu ne nga mën kaa jot. jaa jëf mbokk yi way ànd ak ñun seetaan déglu ñu daal di ñëw indi benn faculté goo leen miin boo leen xam boo leen xamee boo leen di jëfandikoo ci anam yu bari ñu ko dee wax grenade mu njariñ woo xam ne yaatu na waaye dañuy jukki ci benn boo xam ni gis nañu tey fukki nit yuy dox yu ne juróom yee ngi dund ak muy feebar xol. grenade nag bokk na cee la nga xam ne daf koy dàq la nga xam ne daf koy aar la nga xam ne daf lay dimbali ba loolee di feebar boobu nga mën cee mucc su boobaa da ngay daal di wut ñaari doomu grenade ngay jënd bu baax bu frais bu doon bio soo ñëwee sa kër nga xol yi ba mu set nga daal di ko def ci mixeur bi yokk ci tuuti ndox lu toll kaasu at kaasu bu mag kaasu deux cent cinquante millilitres sotti ko mixé ko soo ca noppee nga xaaj ko ñaari xaaj soo ndekkee ba noppi nga daal si jël kaasu ataaya naan soo añee ba noppi nga jël ci kaasu ataay naan soo reeree ba noppi nga jël ci kaasu ataay naan di ko farataal di ko def ñetti yoon si semaine bi incha soo ko dee def suñu borom mën na laa dimbali loolee nga xam ne feebaru xol la doon lu ñu sonal doon lu ñuy bett doon une maladie silencieuse grenade gi baax na ci kon mbokk mi jàppal wutal ñaari doom yu grenade yu baax yu sel nga xolli ko def ko ci mixeur bi def ci kaasu ndox mu mu mag 250 ml sotti ko ci mixé ko su ca noppee nga xaaj ko soo ndekkee ba noppee jël ci kaasu ataaya soo añee kaasu ataaya soo reeree jël ci kaasu ataaya di ko def deux fois ci semaine bi incha allah soo ko dee def suñu borom dina la dimbali nga mucc ci palpitation dina la dimbali ci jafe-jafe lu jëm ci wàllu euh, kii nga xam ne moo di kon mbokk mi ànd ak ñun di ñu seetaan sabone leen chaîne YouTube bi dina tax lépp lu ñuy waxtaanee ngeen xam ko te boole ci partager ngir wax nekk xam.